alhamdu ak cant alhamdu mooy baatub ñeenti xaaji cant yi lamboo juróomi ponki lislaam léegi nag ana baatub alxamdu boobu ana nan la nekkee ñeenti xaaji cant yi ba pare ba te ku lamboo juróomi ponki lislaam mooy nit ki bu nekkee ci njàqaare war naa sant bu la yàlla digalee nga jëf la la yàlla digal nga jëf ko war ngaa sant soo amee war ngaa sant soo ñàkkee war ngaa sant Ibrahima yàllaa ko digaloon mu rey doomam digal malaaka mee nga xam ne mooy Jibril ngir mu dem jëli kuuy ma nekkoon ca àjjana mu ñëw ñu jote ko Ismaayila waaye ñoom ñëpp kenn ku ne bi nga defee li nga war a def suñ borom da leen doon nattu ba mu leen nattoo ba pare nag mu xamal leen ne kat lii ab nattu la ñoom ñëpp ñu wabateku di sant yàlla moo tax ñu ne alhamdu mooy baatub ñeenti xaaji cant yi làmboo juróom ponk lislaam léegi nag boo jëlee baatu alhamdu ñaata araf la al alif laam xaalonk miim deel muy juróomi araf alif laam xaalonk miim deel léegi juróomi araf yi boo ko jëlee araf bu nekk day taxawee benn ponku lislaam li ma lay wax importance su cant li tax mu am doole su ko defee ñii toog di teewlu danañ ci jëlewaale ay jàngat xam bu baax a baax lan mooy importance bi can am li tax sëriñ bi woote sant gi di ñoom su boobaa des na ko xam boo ne boo jëlee alif gi muy benn xam nga man ponk lislaam lay taxawee muy ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah boo jëlee laam gi muy fanweer boobu mooy ponk bu njëkk laam gi muy fanweer ban ponk lislaam moo am fanweer woor weeru koor fanweeri fan lay doon dégg nga boo jëlee beneen can gi muy juróom-ñaar muy muy juróom-ñett muy huit ñi nga xam ne ñoo war a lekk asaka muy xa gi nga jël miim gi miim soo ko calculé lu la jox quarante waxtu julli wu nekk julli farate gu nekk ak naafila yee ko jiitu ak naafila yee ko mujj bu dee am na mujj bu du takkusaan soo boolee calcul wax rakkan yëpp ñeent fukki rakkan lay doon boo jëlee deel gi nag muy aj makka. aj makka ñeenti ñeenti ponk la am ponk yoo xam ne benn boo ci bay baaxut muy ñeent ñu ngi koy tënkee ci li su muy lihraam tawaaf wuquufu fa sax yu na safa wal marwa moo tax boo nee alhamdu baatu can googu nga cant muy dëgg juróom ponki lislaam yëpp dugg na ci biir cant googu. mais